chers internautes ñu ngi leen di euh, nuyu euh, tey ñu ngi ci seen euh, troisième Euh, journée bo euh, journée euh, couvre-feu après bi nga président Macky Sall amal na l'état di état d'urgence donc tay li nga xamanteni nañ ko ñun ñëpp ñoko muy fi ci ñu ngi nak au niveau de la padoie juste ci échangeur bi li nga xamanteni aussi am nañ ko comme ambiance nañ ko nit ñi ñu ngi waxu di gawantu ngir dem regagner yi li nga xamanteni Euh, def ko euh, ci ni mu gën a rafetee defe naa aussi bu ñu xoolee aussi oto yi ñu ngi def le tout pour regagner aussi seen euh, point de chute defe naa lépp loo xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy la population ñu ngi koy maanaam def ngir respecter li nga xamante ni moom moo di décision euh, euh, homme de tenue respecter aussi li nga xamante ni moom mooy règle yi ñu tëral defe naa ñu ngi koy def donc tey euh, fii la ñu tàmbalee tey 26 mars 2019 tàmbalee fii ci Patte d'Oie ngir defal leen état des lieu par rapport ak déroulement troisième Euh, jour de couvre-feu bi euh, après fi ñuy entamé waat defe naa mooy euh, dem fële rek ca rond-point fi nga xamante ni moom mooy croisement Cambérène bu ñu fa jógee nag daal di am suñu point de chute buntu Pikine ngir defal leen li nga xamante ni moom moo di état de lieu wax leen li nga xamante ni aussi gis nañ ko ak ay remarques par rapport à ce troisième jour de couvre-feu comme li ñu leen ko waxee woon léegi ñu ngi fii euh, au niveau de croisement Cambérène ngir euh, defal leen toujours état des actuellement euh, jóge nañ fële ca maanaam Padoa gis nañ li fa xew ak ñi nga xamante ni aussi ñu ngi déserté petit à petit ngir dem ci seen kër yi fi ñu toll nii nag ñu ngi fii au niveau de croisement Cambérène ba tey même constat bi la parce que li ñu remarqué mooy nit ñi ñu ngi def le tout pour yegg seen kër à temps instant bi comme ni ñu ko gisee fii dafa désert d'habitude da daan fees dell da daan xat embouteillage yi fii et cetera donc tey euh, li nga xamante ni mën nañ ko constater defe naa moom mooy nit ñi conscient nañ à ce que Euh, li nga xamante ni moom mooy danger bi nekk ci jàngoro boobu nga xamante ni moom mooy Covid 19 ñuy def de telle sorte que lépp loo xamante ni doon na ay euh, maanaam euh, tegtal yoo xamante ni autorités yi teg nañ ko ñoom dinañ ci jéem a jaar donc defe na le constat est là. li ñu mën a def rek mooy jéem a xool ba xam mën nañ am quelques réactions ñoo xamante ni ay passagers lañ di jàll comme ñu xool ba xam ñoom dinañ mën a wax dara par rapport ak situation bi nga xamante ni tey fekk nañ ko fii ci croisement Cambérène. waaw sëñ bi ñu ngi delloo ziar wér. fàttali ma tur bi. nan nga jàngatee tey euh, situation bi fii ci croisement Cambérène ak ni mu wéetee nii d'habitude daawul mel nii. non li nga wax dëgg la d'habitude daawul mel nii mais lii Macky Sall jël règlement bi moo tax mu mel nii mais dafa xaw a dis règlement dafa xaw a métti ñuy xëy xam nga heure bi nga war a xëy ak euh, heure bi nga war a wàcc ndax da ngay xëy 9h d'accord naa ci moom 9 bi mais da ngay xëy 9 wàcc si quatre heures te quatre heures boo ko wàccee balaa ngay am oto ba ñëw fii wala balaa ngay jógee Dakar di dem Tëngéej boo moytu dix neuf heures fekk la ci yoon ba te vingt heures bu la fekkee ci yoon ba policier wala gendarme mooy du ñu comprendre. donc jàpp nga ni tey euh, euh, yéen da ngeen euh, maanaam liñ li vingt heures bi daal dafa dafa dafa teel quoi. vingt heures bi dafa teel. Mhm. bu ko defoon vingt deux heures ñëpp mën ay teel a yegg seen kër. ñu mën a wax mais vingt heures bi dafa métti pala oto yi nombre yi ñuy jël dafa néew oto boo arrêté danaa la fees naa da lay romb dem te ba bu la juróomi oto rombee boo moytu da nga dox te boo doxee balaa nga yegg sa kër vingt heures jot nga fan nga dëkk man Dalifort fi laa dëkk Kër Moussa laa liggéeyee te chaque jour dama calculer heure mooy yoo ñëw seize heures laay départ foofu te heure bi laa yegg te dafay métti des fois sax fay bàyyi liggéey bu yeggul bi pour mën a yegg si à temps mënul ñàkk foog nga def ko foog nga bàyyi liggéey jàmbur mun nga mën a ñëw ndax boo ko boo ko boo boo toppee dërëm bi rek bu mën ay liif la lay dal. te balaa caa liif li la dal moom nga wàcc fa dërëm bi rek. xaalis moom kenn mënu ko liggéey. xaalis moom mënoo ko li laa liggéey yow yaa ko liggéey am ko. waaw jaajëf. jaajëf merci beaucoup gis nga damay am sax jafe-jafe pour am beneen intervenant parce que fii tellement nit ñi instant bi ku nekk yaa ngi xool nan ngay ñibbee ku nekk yaa ngi xool nan ngay jéema a yegg sa kër donc defe naa dañuy am sax ay jafe-jafe pour am ñoo xamante ni tey dinañ ñu mën a décrire situation bi ñu fekk fii au niveau donc de croisement Cambérène du ñu def rek lu dul xanaa demaat ci yeneen localité yu mel ni maanaam jéem a xuus ba buntu Pikine xool aussi foofu nga xamante ni euh, milieu euh, maanaam la boo xamante ni day danse saa su ne ñu jéem a xool lan lañ fay am euh, jéem xool xool euh, ñan ñoo fa nekk ci maanaam euh, euh, takk der yi jéem a xool situation bi xool aussi ba xam respecté nañ comme ni ñu respecté aussi fii disposition yi ñu teg voilà donc euh, ñu ngi fii euh, au niveau de Buntu Pikine Buntu Pikine moom euh, beneen affaire la parce que Buntu Pikine ku ko xam d'habitude heure yii nii nii kenn mënu fi jall ndax nit kenn mënu fi jall ndax embouteillage wala ay auto wala euh, influence bu bari donc tay buñ fi ñëwé gis fi mu désert gis vraiment lépp loo xamante ni tey daan na fi nekk ñu némé ko ni nekkatu fi donc la Euh, war nañ mën a xam ne tey li nga xamante ni dal na suñu réew dal ci réew yu bari ci àdduna bi lu sérieux la donc euh, euh, defe naa ni ñun ñoo ko gisandoo gis ngeen yoon bi nga xamante ni moom moo jëm SIPS yoon bi mooy yoonu pàkk bi fii moo jëm ville fii moo jëm biir pikin donc ñu ngi ci intersection bi plus exactement defena gis nañ euh, état des lieux gis nañ mbir yi nim fa demee donc euh, li rek day wane ni euh, sénégalais yi actuellement ñu ngi efforcer wu ñu ngi def manam di joxe le maximum de même pour respecter li nga xamante mom modi consigne yi nga xamante ni joxe nañ ko par rapport au au par rapport au comportement citoyen par rapport ak li nga xamante mom moy risque sanitaire yi nga xamante exposé wu nañ ci donc defena respect bobu nonu dawna na du def rek ludul dul yenen yeneen état des lieux wala ñu jéem a ba ci biir euh, euh, station bi na le jéem a xoolaat ba xam situation bi moom mooy répété wu foofu defe naa donc ñoo ko gisandoo jàngat la boo xamante ni kenn ku ci nekk war nga ci mën a indi sa idée euh, ñu dem rek jéem a xuus dugg biir Pikine xool lu fa xew